yàlla kiiraalu ne mu sax jaamu ay ati at kiiraalu ñëw gën a weesu yàlla moo njëkk ya nen ya leen mu ko jago mooy maami adama mamam de na yàlla moo njëkk yeneen ya moo leen mujj moo ko jagoo mooy maami aadama maamam wóor na yàlla ya déglul mu wax la fa leer ak Moustapha doxo dox ca aawala soog ñëw fil kaw ni yàlla ya bur yàlla bind na leer ak Moustapha wal malakotin dahara yàlla leeram nga jiitu na leeri téeméeri junni ba muy junni ba ay junni yàlla leeram nga jaamu leeruk yàlla ay million lu xel dajul salaamaaleykum mbokki jullit yi salaamaaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax kenn ku ci nekk turam ak santam di ñaanal Cheikh Mouhamadou muntaha mbacke sama borom yàlla yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér di ñaanal Serigne Amdi moom sëñ Modou Mbenda Fall di ko ñaanal Serigne Khadim Lo Gaydel ibnu Serigne Moustapha Lo moom sëñ Modou Lo Issa mu mel ni tey jii ñu ngi fii ci kër sëñ Abdoulaye di bis bu mag bi nga xamante at mu jot ñu ngi koy taxaw di ci sargal di ci sant te di ci woote te di ci ndokkeel ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ci njiital Serigne Baye Asngom Zikrullah mi nga xamante moo koy taxawu at mu jot di ci sargal Serigne Khadim Lo Gaydel ci li ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul defal bis bi nag at mu jot ñu ngi koy taxawu fii ci kër Serigne Abdoulahi Yakin Diop mu mel ni tey jii mu ngi toll ci juróom-ñaareelu édition mu war a am ci la 14 bii ñu jëm muy dimanche bi muy samedi bi nga xamante ni ci la ñu jëm muy le 14 mai incha allahu rabbi Serigne Bayass Ngom nag mu ngi koy woo mboolem koo xamante ni am mbokki taalibeem nga rawatina yéen ñi nga xamante ni yéen ay waa kër Serigne Khadim Lo Gaydel mi nga xamante ni moom la ci fas yéenee sargal incha allahu rabbi di ci woo mbooleem mbokki taalibe yi section yi nga xamante ni ñoo nekk ci kër sëriñ bi yëpp mu ngi leen di woo waaye ci njiital Mortala Kan mi nga xamante ni mooy président bi nga xamante ni mooy diwaanu rahmatalil alamin di ci woo mbooleem jëwrinu section yi bàyyiwul kenn mbooleem koo xamante ni mu ngi dégg sunu kàddu gi rek Serigne Bayass Ngom mu ngi lay woo ci bis boobu ndax bis bi kat dara taxu koo jóg lu dul sant Serigne Touba waye delo ndukal mam Cheikh ibrahim Fall Lamp sargal Serigne Khadim Lo dal ibnu Serigne Mustafa Lo mum serigne modlo isa kon bu ko defee bis baangi nonu ñu ngi ciy woo ñëpp di ci xaar ñepp inshallah rabbi jere ngeen def comme ni ko Mouhamed waxee rek fofu lañu jëlaté kaddu gi gëna woté ci ñi nga xamanteni ni dëkk ci kër Serigne Abdoulaye Yakhine ndax ñun ci kër tour kër Serigne Abdoulaye Yakhine la woté ndax bay As doomi kër Serigne Abdoulaye la kon képp ku dëkk kër Serigne Abdoulaye bo déggé sunu kaddu sa yëg la ci bis bi mu ngi noonu mel na ni Baye Ass dugg na ba sa biir kër yëgal la bis bi kon ñu ngi woo ñëpp ndax ku war a ñëw ci koñ bi ñun ñoo war a dalal muy kër sëñ Ablaye yàqin kon mboolem ku dëkk ci kër sëñ Ablaye muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw boo déggee sunu kàddu rek sa lee ngi noonu ci bisub Baye Ass ngoom di samedi bii ñu jub si di la 14 mai muy sant gi muy sant Serigne Touba waaye nag di sargal Serigne Khadim Lo borom ndaam ren mu ne septième édition kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ góor bàyyiwuñ jigéen bàyyiwuñu mag bàyyiwuñ ndaw fépp fu mbokk werekaanam nekk mu ngi lay yëgal bis bi di la woo te di sàkku sa teewaay ci bis bi bis bi nag bu ñu ca àggeeg jàmm samedi dinañu xëy wàcce kaamil dinañu jàngi xasida dinañ def ay berne bu waxtu berne jote jote bu ñu ca jógee bu ñu àggee ca guddi ga dinañu dalal gan yi tàmbali cérémonie bi dina am jàngum xasida dina am jàngum rajas waaye dina am njàngum sikkar Baay Faal kon képp koo xamante ni yaa ngi dégg sunu kàddu loolu mooy li nga xamante ni moo war a am ci bis bi di woo tamit waa kër Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni gépp ndax bis bi waa kër Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ci wàccaayu bis bi alxamis bii ñu jub si muy guddi ajuma dañ koo jox Baye Ass Ngom muy guddi ajuma général yi nga xamante ni ci njiital jëruñ Moustapha Fall moo koy jiite ñu jox ko Baye Ass ngir wàccaayu bis bi kon loolu it ñu ngi ciy woo ñëpp bayiwuñu kenn bàyyiwuñu bayiwuñu jigen assalamu alaykum wa rahmatullah bis baangi nonu noonu kon ni ko Mouhamed Fall mi waxe danaka sunu kaddu day dugg fofu ak it euh, lampe mbegere mi ni mu ko waxee sunu kàddu day dugg fofu xanaa di wowat ñepp rek fu soppe nek ak fu xarit nek fu am di jamm nek rek képp kiy bëggee Baye Ass rawatina ngay wax asadu an la ilaha illallah wa asadu muhammadur rasulullah ni ngi lay woo ci bis bi na tarixa yep nak ndax ñun ñepp lañ am lanté ku dégg sunu kàddu rek daanaka loolu mooy sa invitation bis bi dañ ko fas yéene def ànd ko jullit yëpp ñu fas yéene dundal diine ji fas yéene nag ñu àndandoo maase nag ñu sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ma ci dolliwaale njukkal nag sunu jàmbaaru l'islam bi sunu sëriñ lépp di sëriñ Khadim Lo Gaydel borom ndaam fekk fu sëpp fu soppe nekk ak fu xarit nekk rek ñu lew ñu woo kilifa diine yëpp nag fu kilifa diine nekk rek man Baye Asou Ngom maa ngi lay wo ci bis bi ndax man o ma len luddul bis bi bu ko def fu kilifa aada nek rek ñu ngi len wo ci bis bi fu soppe nek fu xarit nek muy góor di jigen di mag ak ndaw ma ngi len wo fi ci la 14 mai insha allah rabbi fi ci kër si Ablaye ñu fas yéene béggalante nag ci khasside yi ci turu yalla wi fu yéene ci nag sikar sikar su musul am fenn nak ma len ko dik insha allah dina ko and ak ñu ko wara andal ñepp nak ci tuddu katu yalla ci kat yi nak ñi ngi ko fassene and ak ñepp dundal guddigi ku fi ñew ñu ngi ñaan suñu borom fajj say aaju biir ak biti ci barkeb Serigne Touba ñi ngi jox ñepp rendez-vous la 14 mai insha allah rabbi jere ngeen jëf diko wara and ak nak wa RTT TV. di nga xamantene moy télé bi nga xamantene ci lay yëngu sama émission ali ihsan di sunu télé diko and ak wa Kennel TV bi nga xamantene sak ana ñu and ko ak ñom ci njiital Serigne Soirée mi tok taxaw kon rendez-vous baa ngi nonu insha allah rabbi kon ba samedi jam jere ngeen jëf fu goor jigen nek rek mag ak ndaw ñi lay xaar ci bisu yu samedi incha allahu rabbi jere ngeen jëf. ma del siwaatala na yaaraw ba ñëpp a naan jazaaka xaadimu rasul ahmadu yaay ki fi man yaa jiitu gaa yi fi gën ba yàlla jox na la kun jazaaka xaadimu rasul ndam yëpp yaa ko waral may yëpp yaa ko amal xéewal yaa ko fi jal yow mbër nga xaadimu rasul manaan la jaajëfe yow yaa tax ba lépp a ngi taw ku ñëw fi yow ami yiw am barke xaadimu rasul rayi ngëneel yi nga yor moo tax ku nekk a ngi wër ñaneel ba fay la sabar bor kenn nga segitu rasul saw ngañu rat na xadim sa jiitu kenn du ko miim sa jëf ji ñépp ko yéem yéeme nga rasul wilaaya yaa ko fi am am barke fees ak i ta wax ñu ne am yow am nga xaadimu rasul lool laal mu fees ku yiw ko duy mu jóg sori bew doo xontu kenn mu sew xontu nu rasul barke borom Tuuba